yi ba sonn te amuma ko lii may digal sëriñ si nag c'est valable pour les kiliyan yéen clients yi noonu ngeen koy defe gis nga dàllam yim sol moom ñëw ci yow dàllam yam jëlee këram ñëw ci yow moom ngay jël na ko yii dàll laa soxla bu dee yow client bi la nag maanaam yéen ñi may waxal waa TikTok jël leen dàll yooyu yi ngeen xam ne moom ngeen di doxee di ko wuti liggéey wala ngeen dem ci sëriñ bi nga dem ba ci àll ba wala nga dem ba ci jaaykatu marché bi yaa xam ndax àll bi moom day jafe ci ñu baree bari mais dem ci àll bi moo gën yor sa jaasi dem ci garabu guy di xas di ko wër di xas di ko wër ba am ci lu bari boo ñëwee def ko sunguf dem ci garabu kàdd xas di ko wër xas di ko wër def ko sunguf kon ñaari garabee ngi noonu garabu guy garabu kàtt garabu guy garabu kàtt nga xas leen ba ñu wër nga def ko sunguf dàll yi nga doxe woon dem ci sëriñ bi na sël sëriñ bi jël dàll yooyu xooj ko ci ndox ba mu mat ay cinq dix minutes mu seppi ko jël sunguf ci def ci ne la sango sangoo ko ñetti fan boo sangoo sangootoo ñetti fan ba pare nga solaat dàll yooyu dem wari liggéey nga xool man moom xam naa lu ma lu ma wax gars yi daañu ko testé am naa yaakaar ne bu fekkee ne yàlla nangu na ko lii ma wax nii bu fekkee borom bi subhaanahu wa taala nangu na ko képp ku ko def boo wëree liggéey di nga ñëwaat fii daan na ba ma wëree am na ci kàttanu yàlla bu ci yàlla àndee nag.